di waxtaan ak waa réew mi euh, fas yéene vraiment euh, compte si pour que bu prochaine inscription yi amee déwén dina am pour la diaspora parce révision à la veille d'élection si la ñuy ubbi la révision dans les pays étrangers donc en janvier faut la DSE se prépare dès à présent balaa janvier ñëpp bindu ñëpp bind xale yi am këy bind ñi amuloon ñu mën a inscrire sur les listes électorales bu 2012 jotee ngeen mën a exprimer seen vote jàppale ñu pour que ensemble ñu changer Sénégal dans l'intérêt de toutes les populations maa ngi bandiraɓe sehilaɓe mboɗo ñagonɓe fof gon toon euh, président meɗen Macky Sall ɓe haali haala watto fayido ko idi jokka e namde nde avant de passer aux questions bandiraɓe gande maayo waɗi ndiyam eɗen ɗo hannde koɗo tedduɗo mo ganduɗa hoorema en cikkanma arɗo kono noon nde wonno en ñaakima ɗum en kollitii ɗum eɗen jiɗi yiiti ɗum e ndeer meeɗen o déplacimo ari haa ɗo omona e ndeer meeɗen mi añii noon dartinde konngol président o gaccumi président haali haa ɓayni kono eɗen jogii e ndeer meeɗen ceerno siraji cam ko mbi ceerno basiru cam to wayno gunas gummoɗe poppoɗen bisimilla